ngeen jëf mbokk yi ci ànd gi ngeen di ànd ak L24 TV di ñu topp ci suñu information suñu programme suñu reportage ak suñu rubrique tey jii nag reportage bi ñu leen fas yéene indil ñu ngi ko jagleel lii di nekkinu oto RIM yi ci dëkk bu tedd bi di Touba. RIM nag nekk ay oto yoo xam ne nii askan wi xam nañ ko lool ñu ngi koy waxee ñu ngi leen di wax léeg-léeg oto fukk-fukk yi wala oto ndag yi waaye ay oto la yoo xam ne nii nemmeeku nan leen li ëpp ci ñi koy yor ay ndaw lan ndaw ñooñu nag. teggin ak yar ñàkk ci ñoom ba tax na ay jéey yu bëri ñu koy indi ci yoon wi leneen li nga xam ne ni mën nañ koo seetlu ci ñoom buñ sukkandikoo ci kàddoog askan wi mooy li ëpp ci ñoom amuñu ay kayit lu leen neex def waaye ak ceetaan dafa mel ni daf cee am loolu tax na nag xam ngeen ni fii ci dëkk bu tedd bi di Touba Rim yi ñu ngi bàyyeekoo marché Ocass di dem ci ay bërëb yu fasantikoo mën nañ cee lim garage Daaru Muxti euh, Ndindi Alieu Tanzil jàpp Jannatul Maxwa nga xam ne mooy ñetti bërëb yi nga xam ne ñoo gën a rëy ci dëkk bu tedd bi di Touba rim yooyu nag ñu am benn seetlu ne lu ëpp ci accident yi ñuy gis ci yoon wi ñoo koy def seen digganteeg yenn chauffeur yi ak borom saret yi doon ay ñagas-ñagas loolu tax na nag askan wi saa su nekk ñu ngi dund lu mel noonu bu yàggul rek fii nga xam ne nii moo di télé bi bàyyeekoo ci jumaa ji jëm Ndiouga Kébé lu matul ñaari weer ñaari accident am na fi yoo xam ne nii ay rim ñoo ko causé rim yooyu nag rey fi ñaari xale yoo xam ne nii kenn amu ci fukki at loolu tax na nag ñi nga xam ne ni ñoo di askan wi di dund lu metti lool ne nag jot na sëkk nag ñu indi ci ay saafara lii nag moo tax L24 TV tey wàcc ci mbedd mi jàkkaarlook ñenn ci askan wi ngir ñu dikk ak ñun seen xalaat seen gis-gis ci riim yi seen ëllëg ak lor yi nga xam ne nii ñu ngi koy amal ci dëkk bu tedd bi di Touba kon ñu ànd ak yéen ci reportage boobu leen man ma Yacine Fall Touba Darou Minam chauffeur ci taxi yi depuis fin de 92 laa commencé taxi fii ba léegi. mel ni bu ñu waxee transport Touba am na ay oto yoo xam ne nii gis nañ ne bëri na fii mu di riim yi waaye askan wi ñu ngi leen di joxoñ ci euh, jëf yoo xam ne ni daal ëpp na jéggi na dayoo en tant que chauffeur ne ci Touba lan nga xalaat ci nekkinu riim yi ci Touba. maanaam dafay am loo maanaam nit ki loo xam ne loo jàngul doo doonub sëriñam parce que métier mi dafay métier moo xam ne dañ ko fooyee léegi te doo waruñu ko fooyee ndax boo gisee ñaari ñu di ci def yu mel nii ñàkk a mën a jàng ñàkk koo jàng moo tax ñu di ko def mais nit ki du jàng métier ba pare di ko fooyee parce que diggante un mois trois mois quatre mois nga jàng ci oto man ci oto di jor oto di ko dawal moo tegul fenn parce que dàqe bu métti bee itam dañ ko tegul fenn ñi nga xam ne ñoo leen di jël di leen eh, di leen di leen atte oto ba ñu na doon dàqe ak ka ñu ka doon daan dàqel ñoom ñaar ñëpp la ñu war a jël la la tegee ca kee la ñu ko war a teg mooy yoon. mu mel ni dugguleet ñuy gis riim yi moo xam yoonu daaru moxti aliya wala fii ñuy def yu mel nii waaye dafa mel ni chaque jour dañuy gën a yokku ceetaan goog nga jàpp ne moo ko waral. ba ki demb rek lii ngay wax euh, doguma la da ba ki démb dama wëlbati bu ma do buñ la nee tay faar yow ya way droite may leen mais sinon ñu dal ci sa kaw. moom defe nañ ne fu ñu la wubbeelee faar rek duñ la defee faar war ngaa war ngaa droite waaw parce que dafay am loo xam ne maanaam ñun ji ci bopp maa ngi jégalu de mais sécurité bi ci boppam moo xaw a des parce que dafay am loo xam ne bu fekkee ne dafa am ba ba ba noppi sécurité ci boppam moo war a wëlbatiku nag jàppale xam ne xel ne lii nag dafay am loo xam ne métier la métier noobal la ku ko bëgg a yàq dañ la ci war a génne muy waa transport muy édika muy ñoom ñëpp ñoo ci war a jog jàpp ci xam ne lii mooy problème boo xam ne ñoom ña ngi bëgg a yàq dërëb dëkk bi. ndax situation bi jotul ñu de ñu àggee ko sëriñ bi mu ci ay saafara. bu baax sëñ bi war na ko yëg ndax lu bare bari dëgg sëñ bi da ko dul yëg dañuy jëm ba ci bunt bi ñuy junj ko ka fa nekk ca bunt ba ñu ne sëñ bi nee na te sëñ bi waxut dégg nga ñi nga xam ne ñoo fi nekkal sëñ bi nekkal fi taalibe yépp ñoo war a jóg taxaw ne xam ne lu jógati ñu muy lu wa ardu nañ ko wax sëñ bi parce que comme ko sëñ bi moom moo toogoon fii ba mu nekkul xalifa kër sëñ Basiru ne lépp lu leen naqareeti ci dëkk bi dikk leen ci man bu kenn gerew bu kenn def dara nañ ñëw ci man te loolu lépp doxewuñu ko dañuy def li leen neex ba mu metti ba metti ñu doog a dem ci sëñ bi. ndax kon jotut autorités euh, yi ñu jéem leen ci yoon wala ñu génne man de du ma ne ndax la na sampub sëñ bi du ma nañ ko sempi mais ñe mais mais dama ne la forot dafay yàgg. kon du ma ne nañ ko nañ ko dindi mais nit ñi fi nekk te nar koo saboté laa ne la nañ leen fi nañ leen fi jëlee. muy rimi moom man maa ngi toujours maa ngi kaw tali bi di dawal yooyu daal ma leen gisee sax euh, leen parce que ñoom toujours kii bi euh, dañuy toujours foo leen fekk dañuy daal dàqante la ñuy def te loolu war na mën a naat ci dëkk ndax war nañu mën a def ndànk di daw ndànk di dal di na ko sëñ Fall waxee woon mais toujours ñoom ci dàqante bu méttee métti lañ nekk ab dëkk nag boo ca nekkee di liggéey da nga war di def ndànk ndax li ñuy am lépp lépp bakkan moo gën a foor a kon war nañuy def ndànk ba bañ a gaañ kenn jël seen wërsëg du rey kenn vraiment ñoom war nekk nii war nañ leen war bu baax a baax daal baax baax baax baax war nañ leen réglementé bu baax a baax ndax man yàlla xam ne ne heure bu leen gisee damay teggi moytu leen parce que soo ko deful toujours ñoom à chaque fois boo leen gisee dañuy dàqante chaque fois rek boo leen gisee dañuy dàqante te vraiment yaruwuñ dëkk meek ñoom euh, ci ci seen bopp daal loolu ci seen bopp la mais xam nga nit ki jekk-jekk rek euh, yaroo ci oto jàngoo defoo dara xam nga amul doo am benn jikko bu baax a baax yow daal li la neex rek ngay xam nag ñoom li la neex rek lañ xam loolu mooy indi problème bi donc war nañoo xoolaat bu baax a baax seen bopp am jëf joo jëf joo tay la proposer solution lan ngay proposer comme solution crime yi ñu réglementé wala ñu jëlee leen réglementé comme ñoom dañu dàq seen wërsëg nañ leen réglementé képp kuñ ci gis muy dàqante ñu jël sa permis man doon loolu laa xam comme solution comme ñoom dépense na ñu wut lañ leen réglementé képp ku ci gis képp ku ci gis ngay dàqante ñu ñu ñu jël sa permis wala ñu xool nuñ defee wala ñu wala ñu tëral commission 3 mois doo liggéey man daal loolu laa gis. kon mbokk yi yéen ñi nga xam ne ni yéen a doon topp reportage boobu wala micro boobu da ngeen ñenn ci askan wi gis-gis bi nga xam ne ni am nañ ko ci réew yi kon nag jot na sëkk képp koo xam ne ni am nga responsabilité ci dëkk bu tedd bii di Touba nga waxaat nag ci nekkinu oto yi ñuy wax RIM ndax seeni lor ku nekk gis na ko te kenn mënu cee mujj waaye nag mën ngeen a seetaan ci beneen vidéo bi beneen reportage bi ñenn ci chauffeur yi wala ñenn ci ñi nga xam ne ni ñoo yore oto yooyu ñoom nag teggi neen tuuma yooyu ndax ne nañu du ñoom ñoo koy def waaye ñoom am nañu kuréel goo xam ne nii képp ku ca bokk mën ngeen a seetaan déglu nag li nga xam ne nii moom la chauffeur yi yor oto yi nga xam ne nii moom la ñuy wax RIM wala oto yu mel ni ñoom ne ci dëkk bi liñ wax